الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جولي دي su ngeen gisee بي bi امنا am na lu mu leen war a fàttali mooy génnu ceerno saidu nuur vingt cinq janvier la woon at boobu su ñëwee fépp fu njabootu jullit nekk dina xalaat bés bi ndax dafa nekkoon góor goo xamee ne dafa liggéeyal lislaam kon su bésam boobu ñëwee njabootam ak am eh, di jàmmam ak ay soppeem dañuy daje si bërëb bi pour defal ko ay ñaan ndax bokk na si doom bu déggal waajuram doom bu baax mooy kuy ñaanal ay waajuram donc bés boobu ñëwaat na ren mooy ñeent fukki at bi mu làqoo si suuf moom Thierno Saïdou Nour radiallahu taala anhu comme nag xam nañ ne relation ak Alaji Malick radiallahu taala anhu ñu ne ñeent fukki atam yi moom dañ koy jël jagleel ko njabootu Alaji Malick muy sëriñam moom lañu jox bës bi kon mu ngi nekk ci kilifteefu sëriñ Aboubacar euh, bu Mansour ak ay rakkam ñoom ñoo yor kilifteef bi ziyaara bi nag dina nekk juróomi fan wala ñeenti fan mu ngi commencé le 23 le 23 bi conférence bu mag bu ñuy def fële si King Fahad lan la conférence bi di wax conférence bi dafay wax ne valeurs yi nu ñu yàqoo ak jikku yi nu ñu yàqoo dañu bëgg a seetaat yan garab mooy mooy tax société bi baaxaat ñu ne nag léegi amuñu keneen ku gën loolu ndax am nañu góor goo xamee ne dund na téeméer ak fukki at ak juróom-benn muy Thierno Seydou Nour nan la dundee woon si dundam lan la doon def ñu fexe jël si dundam seet lan lañ si mun a jël ba faj si njaboot gi ak société bi kon conférence boobu dina def le 23 si King faat 10 heures lay commencé euh, su ginnaaw boobu su conférence bi weesoo euh, vendredi bi ñëpp xam nañu julli juma julli dinañ jóge fu nekk ñëw ñu daje fi julli si juma. suñ jullee juma ngoon bi dinañ def xadara suñ defee xadara boobu suñu paree Thierno Madani dalal gan yi waxtaan ak gan yi génnee mission euh, euh, lu mu war a wax li lan la war a wax ak njaboot gi loolu di dina am mooy anju ajjuma bi samedi bi di comme niñ ko doon defee dinañ def ay ñaan yoo xamee ne dañ ko jagleel mag ñi jagleel ko réew mi jagleel ko adduna bi yëpp ndax ñaan addu'a u silahul mumin jullit su jaaxlee na delluwaat si ku yor yi mbir yëpp mooy yàlla ñu ñaan ko ndax yàlla wàcceel ñu jàmm wàccee jàmm si àdduna bi wàccee xéewal si àdduna bi loolu dina am samdi bi ak dimaas bi mooy cérémonie officielle bi fan yooyu yëpp dinañ def ay ñaan ay xatmu Quraan yi dinañ ko def cérémonie officielle bi samdi la si ngoon foofu la ñuy daje officiels yi ñëw gan yeneen yi ambassadeurs yi ñëw ñu daje waxtaan ak ñoom di altine bi boobu mooy Euh, raabida daje def seen conférence bi ñuy doon bu ñu doon def bi ligue bi ñu daje waxtaan si loolu mais ziyaara ren bi daal xusuusiyam mooy ñëpp xam nañ ne jumaa ji dañ nekk si liggéeyaat ko kon ñuy fàttali jullit yi jumaa néegu yàlla la néegu yàlla nag su wootee jullit bu ma bu bu bu texe di nga ñëw def si sa dërëm man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla kër yàlla tabaxal la kër ci àjjana ku tabaxal yàlla jàkk yàlla tabaxal la kër ci àjjana mais soo waxee tabax kër dañuy ne kooku de borom alal yi yonent bi dellu defaat récupération ne walaw qadra mafxasati qataatin même su dee loo xamee ne picc fu muy tëdd tàggu picc nga ci def yàlla dina la tabaxal kër kon nag loolu mooy xususiya bi ñu ngi siy woo jullit yëpp di fàttali leen bës yi di ñëw muy le 23 24 25 26 ba le 27 fii la ñuy daje di def ay ñaan yàlla nañ yàlla nangul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh